asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen li ñu koy defee chaque samedi ci seen biir émission Zap Série tey nag ñu indiwaat leen seen rubrique revue de série tàmbale ko ak série boobu nga xam ne moom mooy belle taa bintaana dafa mel ni ay pexem jamono ji antu na ginnaaw bi mu manigancé ba tas sëy doomam boobu nga xam ne moom mooy Mamadou Lamine ñu ne déet mu teg ci ko turam ndóoram boobu nga xam moom mooy binet waaye lu olof njaay naan lu ko tëgg tasu ko Mamadou Lamine bien vrai que takk na binet mais xelam ak xolam yépp jox na ko Khadija moom binet moomee sax loolu la xam ba tax mu proposé Mamadou Lamine à ce que Khadija ñibbisiwaat ci biir kër gi waaye taa bintaan nag nee na Khadija daaguwaat ci biir kër gi dee dugg safara moo ko ko gënal ci yenn goro yi kër gu tas ñoom ñoo ko tas dañuy sëy seen sëy ba pare bëgg a sëy seen sëy doom xalaas beneen kër gu tara tas jamono ji mooy kër sala sala nag dem na ba découvrir kii di Ousmane di jëkkëram lim nekkee ci dëkk bi ndeke Ousmane daal lu dul def lu dul di iri xale jigéen ñi de gauche à droite ci hôtel ba tax na Fatima filmé ko ci benn hôtel teg ci di ko chantage laaj ko 20 million cey Fatima xale sañ keneen koo xam ne jamonoom nar na yàqu nag du kenn ku dul Ibou di jëkkëru Fatima ndax dem na ba découvrir vrai visage yu Fatima xam na ne Fatima mosu koo bëgg alal la ko toppee commencé na nag naan di tux lu nekk mu dugg ci bu ñu jógee ci série boobu nga xam ne moom mooy belle ñu jàll ci série nga xam ne moom mooy maîtresse d'un homme marié waaw waaw defante gi commencé na de maîtresse yi taxaw nañ temm bëgg a seen bopp waaye aawoo yi nag nee leen may kii di Marème langal na ko jëkkëru jàmbur ne du ba waaye fee ba nee na moom jëkkëram aljana xolul ci ben xale bu jigen way xamul ne góor ak mo raw courant bu coupé course lañu def léegi nak liñ naan ku wax li wax la ca dess raki liñuy laaj moy ndax yaaya moko jur réellement ndax tek nako ciona aduna go xamne yalla ci bopam teggu ko ko li ci kanam rawul li beut yeen mbokk internet yi fi lañuy yem ak yeen mais lolu duma def lu dul remercier